waaw kay asalaamaaleykum euh, xam naa dafa am koo xam ne nag dafa mel ni laajam bi ñor na ko lool ndax gis nañ ne mu ngi insisté ngir ñu tontu ko ci mooy kii laaj lan la ñuy wax ci jàngal alxuraan nit ku dee jàngal alxuraan nit ku dee mooy comme li ñuy wax wàccee kaamil nga xam ne noonu la ko nit ñi di faral di waxee yàlla dogal na am na at ci ginnaaw 2018 benn nit ma sama laaj li aju ci li ñuy wax wàcce kaamil bi ma ko waxee ma ne ko. kaamil wàcc na ba noppi li ci des mooy wàccook moom ndax alxuraan xas na wàcc kon amatul lu ci nit di wàcce li ci des nag mooy wàccoog moom wàccoog moom mooy lan mooy li nga xam ne moom la ci yàlla wax nit ñi fexe ba xam ko di ko jëfe ndax loolu mooy li leen jëriñ damay wax ne alxuraan soo ci demee alxuraan li ko tax a jukk ak ñi ko tax a jukk yàlla da koy wax yàlla wax na yonent bi ci surat 38 verset 29 ne ko kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun li yaddabbaru ayaatihi wa li yatazakkara ulul albaab alquran dafa wàcc nga xam ne nga xam ne yàlla dafa wax ne téere la bu ñu barkeel wàccee ko mu jëm ci yow muy yonent bi mu ne ko ngir ñu settantal ay aayaam ngir ñu settantal ay aayaam ak ngir borom xel yi xelaat alquran lu tax ñu war a settantal ay aayaam mooy li nga xam ne moom moo ñuy gindi fii ci suuf di ñu wan naka lañu ñu war a doxee mooy muy maanaam suñu borom naka la bëgg ñu doxee ko loolu nag suñ ko bëggee xam dañuy dellu ci alxuraan di ko settantal di xool lan la ñu yàlla wax lan la ñu digal lan la ñu tere naka la loo doxloowee loolu nag su boobaa loolu ci lay mën a nekk ci ñun te loolu moo ñuy jëriñ fii loolu moo ñuy jëriñ fa ñu jëm léegi nag su fekkee dañoo ñëw ci ñi nga xam ne par exemple dañuy wax ne su nit deewee dañ koy jàngal alxuraan des fois am ay débat yu fi amoon entre ibaadu yi ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax suufi yi mooy ñu nekk ci tarixa yi euh, ci jàngal alxuraan nit su deewee dama leen wax ne su ngeen demee ci alxuraan suuratu yaasin nga xam ne nit ñi dinañ koy faral di jàngal sax nit ku dee damay wax ne paradoxe bi foofu la nekk suuratu yaasin maanaam day saar bu ama ama am solo boo xam ne nit ki su ko seetantaloon sax dana xam ne mom dana xam ndax ni su wares nako jàngal alquran wa wares ko jàngal alquran bu dekk lu doy war su ngeen demé ci suuratu yasin manam aya mi suura 36 aya 69 ak aya 70 yàlla day wax yonent bi nako ko wa maa allamnaahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'aanun mubiinun mu tek ci nak lu am solo لتنذر من كان حيا ويحق wa على الكافرين لتنذر من كان حيا لو رك لو رك دا خم يالا دا فا يونتبي نكو مانام خامالو ني وي كوم لي نيوخ بويزي مونكو خامالو ني لاكو تييت يلو تي ياو مون مام ليغا خا نمو لنجا خامال دو لين لودول اك فاتالي دي لي ني جانغلو لير مي كوم لي جوخ القران مو نيك لي ني جانغلو لير léegi loolu nga xam ne moom la ko xamal nag ngir lan la mu ne ko li sira man kaana yan ngir nga xupp koo xam ne day dund mooy leen kon ku dee lu ca yoonam ku dee kay loolu kay ku dee yoonam newu ca ndax loo xam ne ni ngay dundee la lay waxe te lu maanaam loolu la lay wax sa borom lii la bëgg ci yow lii la bañ ci yow léegi yow nga dund ba dee ci na nga doon dundee nga bàyyi koo fu ñëwee dañ koy jàngal lu lay jëriñ mësaa dégg kenn ku koy misaal mooy dafa mel ni comme code de la maanaam yow ngay dund jàngoo code de la maam jëfewoo ko ci tali bi dem ba dee ñu la koy jàngal xam nga loolu soo xoolee solo si bariwul ndax nit ñi li ñu war a xam mooy yàlla dafa am lu mu jàngale loo xam ne ci responsabilité lay delloo nit ñi mu nekk lu ma tax xam nag souvent nit ñi di ñuy wax loolu parce que yeneen lañ gëm yeneen lañ leen wax ñu topp loolu te loolu bokkut ak li yàlla jàngale. soo xoolee maanaam damay faral di wax ne nit ñi dafa mel ni dañ dul bàyyi xel su fekkoon ne alxuraan nit su deewee dañ ko ko war a jàngal dañ leen a war a laaj ndax yonent bi bi mu deewee ñoom ñoo war a dem gëstu ji loolu ca la ñu gëm ndax yonent bi mu deewee jàngaloon nañ ko alxuraan nga gis tamit fii ci dëkk bi maanaam chaque année da gis nit su deewee chaque at ñooy dañ koy defal ñaan dañ koy defal sarax dañ koy defal nangam léegi te war nañ leen a laaj est ce que yonent bi moom bi mu fi bàyyi ko boobaa ak léegi koy defal bisub ñaan bis ba mu deewee dañ koy defal sarax waa dañ koy defal nangam yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne dafa war nit ñi di ci xelaat ak di ci bàyyi xel mais nag comme li may wax daanaka li fi nekkoon aadala la maam ñu leen koy nga xam ne maam moom lañ leen doon jottali ñoom it defuñ benn effort ngir vérifier xool ndax loolu lu sax la ci diine yàlla wala saxu ci donte nag liñ leen jàngaloon leneen la mi ngi jàngaleem ahlu sunna wal jamaa mais su ngeen demoon ci alquran di xool suñ borom li ma wax ci mbir yi di ngeen xam lan ngeen wa a def ak lan ngeen war def ndax nit ki su deewee ana lan moo koy jëriñ su ngeen demee ci suuratu yaasin ba tey aaya douze mu nekk aaya bu am solo yàlla dafa wax ne inna nahnu nuhyil mawta wa naktubu maa xaddamu wa aathaarahum wa naktubu maa xaddamu wa aathaarahum wa kulla shay'in fii imaamin dafa wax ne ñun ñooy dundal ku dee te danañu bind nga xam ne nit ku nit ki ci yow sa bopp la li maa li ngay bindal yàlla mooy te danañu bind la mu jiital mooy la nga xam ne da koo jëfoon bi muy dund ngir ëllëg loolu lañ koy bindal ak la nga xam ne mooy jeexitaloo ca la nga xam ne da koo jiitaloon ngir ëllëg damay wax ne nit ki la mu jëf lañ koy bindal waaye yàlla waxul lañu ko jëfal déedéet lay jeexitaloo ca la nga jëf mooy comme par exemple nga moo xam comme ni ñu koy jàngalee ci yenn téere yi su fekkoon ne da ngaa bënnoonu teen def ko ngir yàlla nit ñi di ci jëriñu liñ ciy jëriñu dañ la koy bindal soo deewee teen boobu wëy nit ñi di ci jëriñu lu mën a xew dañ la koy bindal loolu sa jeexitalu jëf la jeexitalu jëf mooy li nga jiital xam nga da ko def yow ngir yàlla ak lay jeexitaloo ca loola loolu la yàlla wax ne lañuy ñuy bindal nit ki lañ ngay jëfal sa ginnaaw at mu ne ñu ne nañ ko saraxeel at mu ne ñu ne nañ ko jàngal kaamil at mu ne nañ ko nàngam loolu bokku ca la nga jiitalal sa bopp la yow nga xam ne kooku su fi bàyyi ko yéen ñi fi des di dund yéen fexe leen a jiital dara ngir seen bopp yéen ndax loolu mooy leen di jëriñ ak lay jeexitaloo ca la ngeen jiital loolu mooy li yàlla jàngale yàlla wax ne inna nahnu nuxyil mawta wa tubu maa xaddamu wa aathaarahum وكل شيء أحصيناه في إمام مبين من ngi 36 ay 12 muy suratu yaasin nga xam ne kenn ku ci ne yow yaay dem vérifier ko sa bopp mu am tamit beneen boo xam ne yàlla wax na ko aussi ci suratu najmi nga xam ne ku dem ci surat 53 li commencé ci ay 37 ba ay 41 su ngeen xoolee yaakaar naa ci aaya su ngeen xoolee aaya 39 bi yàlla dafa wax ne wa an laysa lil insaani illa ma saa nga xam ne bis li yàlla jàngaleel boppam nit ki la ko fay jëriñ mooy la mu jëf kepp la mu jëf la mu jëf moo koy jëriñ nekkul luñ ko jëfal luñ ko jëfal yàlla waxu ko de la mu jëf la wax wa anna sa'yahu sawfa yuraya summa yujzaahu al-jazaa al-awfaa ba ci moom mooy nekk ci aaya 41 bi kenn ku ci ne yooyu yaay dem vérifier ko sa bopp fii nag dangay dégg ñu naan ñu tudd waaye damay jullil maa samay waajur damay ajal samay waajur loolu yëpp dara wéru ci sa waajur fi bàyyikoo kooku jëfam dog na mënoo koo jullil sa waajur fi bàyyi kooku jëfam dog na koo ajal yooyu wérul du njàngalem yàlla te kam ni may wax du ab du yàgg mukk ba nit indi ab aaya buy saxal loolu amul lii la yàlla jàngale ci jëf mu nekk lu kenn ku ci ne mën a vérifier boppam wax naa ay wax naa référence yi kenn ku ci ne mën nga ko vérifier sa bopp yaa koy gisal sa bopp xam ne yàlla lii la jàngale te yàlla li mu jàngale noflaay la li may wax ne yàlla diineem dafa yomb dafa jàppandi yi nit ñi dugal ci mbir yi nag mooy sonal nit ñi mbiru ñaan yi ay coono la ci nit ñi nekk ay coono ci famille yi nit ñi di dagg seeni yitte lu ne ñu ciy tàbbi te fekk li am solo te yàlla di ko jàngale mooy nit ku ci ne bi ngay dund bàyyil xel sa ëllëg لولو مي وقت سورة حشر مي سورة سنكان نف دي وقت يا أيها الذين آمنوا تقول الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون يا دي وقت أي ينجم بايلن خل يالا تبكن بوتينا نخول لمي جيتل غير ألك نخلو لا يال دي بندل te mun a bàyyi leen xel yàlla ndax yàlla kat ku dañ kumpa ci li ngeen di jëf la mu ne nekk bu leen mel ni ñi nga xam ne dañoo fàtte yàlla ba yàlla fàttaloo leen seen bopp mu ne ñooñ ñooy faasixuuna yi mi ñooñ ñooy pervers yi di jalgatikat yi kon loolu mu nag mu nekk mbir moo xam ne kenn ku ci ne yow yaa koy bàyyil xel sa bopp yaa koy vérifier sa bopp yaa koy gisal sa bopp xam na yàlla moom lii la wax ci mbir yi kenn ku ci ne nga dem vérifier ko sa bopp gisal ko sa bopp xam ne yàlla kat lu lay noppal loolu la jàngale li lay noppal لول لا جف لو تتيت لول لا توبلو ما شاء الله جيرين جف والسلام عليكم